mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu waa réew mi ñëpp di leen di wax asalaamaaleykum. di nuyu mbooleem kilifa diine yi nekk ci réew mi ñëpp. nuyu mbooleem kilifa aada yi nekk ci réew mi ñëpp. ak ñu ñu bokk dëkkeek réew mi ñëpp ñu ngi leen di boole nuyoo bii nga xam ne ba biir aljanna moom la ñu nuyoo. muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jàmmi yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla bu mu dañ di dotteeku ci suñu réew ak mboolem réew jullit yëpp mboolem aduna bi yëpp jàmmi yàlla jooju ak yërmandeem ak barkeem yàlla na ko laawale. mbokk yi fa tabaarakallaahu ñu tàmbaliwaat tey ngir fàttalantewaat sunu biir laayantewaat biir ci suñu biir. ndax diine lislaam moom diiney laayante biir la waaye diiney fàttali la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàkkusaanam ga mu ci arafa waxoon ne bés ni tey lépp li waroon a wàcc wàcc na mat na cala rek lépp mate kon lépp luñ fi waxati rek fàttali lay doon te yàlla moo ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko nit day fàtte del fàttali ñi gëm ndax mu jëriñ leen wa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin yow mi yàlla yónni yow mi nga xam ne yow laa yónni yow sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ngay fàttali ndax fattali dana jariñ ki gëm yàlla kon lépp lu ñuy def rek dañ koy teg ci cadre fàttali mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey liñ leen di fàttali mooy dafa am ñett yoo xam ne ñetti xeeti commerce la yoo xam ne képp koo xam ne ci sa dund sax nga ci commerce boobu na la bir ne da nga woomle da nga am koom mu bari soo saxee ci ñetti commerce yi nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa sallam waxoon bi ci jiitu commerce bi nga xam ne moo ci njëkk mooy qiraatul qur'an mooy jàng alqur'an mbokk yi commerce la boo xam ne moom jàng alqur'an li ci nekk ci yiw ak ci tuyaaba boo xam ne yàlla dala koy fay kenn xamut nu mu toll képp koo xam ne bëgg ngaa jege yàlla te yàlla jàpp naa ne kuy jullit ku ne bëgg nga koy gën a jege ndax yàlla moom soo koy jege di ko jaamu di jàng alquran dalay xëcc ci boppam def declaration ne diw mii kët na xam yen malaaka yi bés ni ki tey kene man yàlla maa ko bëggal sama bopp man yàlla maa ko jàppal sama bopp maay ay noppam maay tànkam maay loxom maay làmmiñam maay bakkanam maay léppam kon nekk na loo xam ni bu fekkee bëgg nga koo jege moom yàlla ba yegg ak moom foofu foo toll del jàng alquran qiraatul quran ndax alquran yaa man yuridul gurba min mawlaau falyaqra alquran la yansaau yow mi nga xam ne yow yaa nekk ci kaw suuf bëgg jege sa borom bëgg koo nekk ca wetam ndax it su la yàlla xasee ba bëgg li ñuy faral di wax bëgg buur buur bëgg la moo ko gën bëgg buur mbokk yi buur bëgg la moo ko gën ndax yow su fekkee yow yaa bëgg buur soo defee lu dul yoon buur mën na la ko wax ndax yow buur waxule ne la dalaa bëgg waaye yow yaa ko ëmbal ak cofeel goo xam ne cofeel la goo jëme ci moom waaye buur deful déclaration am ne moom da laa bëgg waaye buur su la xasee ba bëgg mooy loo defati gisu ko loo waxati gisu ko ta loo def da ple del ba nga am jàmm kon nga xam ne tabaarakallaahu bëgg buur buur bëgg la moo ko gën kon su fekkee da bëgg yàlla nga jaamu yàlla di jaamu yàlla ba yàlla bëgg la boppam moom mooy li nga xam ne moom mooy li gën ndax seytaane sëñ Samba seytaane dafa toog bés mu défier yàlla mu ne ko yàlla ak sa màggaay maa ngi lay xamal ne sa jaam ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf dinaa fexe ba bewloo leen dinaa fexe ba jëfloo leen ay jëf yu bon dinaa fexe ba waxloo leen ay wax yu bon maadaamat arwaahum fii ajsaadihim fii ak seen ruu yi mi ngi nekk ci seen biir yaram yi fii ak seen ruu mi ngi nekk ci seen biir yaram seytaane def na yàlla dinaa fexe ba sa jaam ñii dinaa leen bewloo dinaa fexe ba nu bon dinaa fexe ba tabaarakallaaw duñ la jaamooti dinaa fexe ba duñ la bàyyiti xel ci leen moo tax sallallahu alayhi wa sallam ba mu juddoo si la affaire yëpp mu a changé moom yonent bi sallallahu alayhi wa ndax yàlla dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sa gaa yi na seen xel dal na seen xel dal fii ak yaa ngi ci seen biir rek lu ñu def man naa leen koo jéggal fii ak yaa ngi ci seen biir duma leen mbugal fii ak yaa ci seen biir luñ def di wax te wax astaghfirullah man yàlla dinaa leen ko jéggal moo tax seytaane bi mu waxee ne ko yàlla sa jam ñii nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf danaa fexe ba duñ la jaamooti normal dinaa fexe ba ñu bew dinaa fexe ba ñu wax lu bon dinaa fexe ba ñuy jëf lu bon yàlla daf ko tontu ne ko wa izzati wa jalaali ci sama màggaay ak sama koywaay maa ngi lay xamal ne fii ak jaam yooyu nga wax ñi ngi def lu bon di wax lu bon tabaarakallaahu di ko doxee fii ak ñi ngi wax astaghfirullah di ma jéggalu man yàlla dinaa leen jéggal kon jaam bi lim war a def ci ak dundam mooy fu mu toll muy saxal istighfar ci làmmiñam di jàng alquranul karim ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne xol day xoomaat comme ni weñ gu ñuul di xoomaatee saxaaba yëpp ni na ko weñ gu ñuul de bu xoomaatee xam nañ xëy na mën ngaa xoos defaraat def ay produit mu dellu na mu meloon waaye xol moom bu xoomaatee nan lañ mën mën a def mu ne ko bu fekkee da ngeen bëgg mu yeesaat mel na mu meloon mooy fu ngeen toll dee leen tilaawatul qur'an wa zikrul mawt maanaam ngeen di jàng alqur'anul karim waaye yit di fàttali dee kon commerce bu njëkk bi mooy qiraatul qur'an jàng alquran mbokk yi dee leen jàng alquran wala ngeen koy jàngulu wala ngeen di déglu fuñ koy jàngee réew mi léegi li may wax alquran ji fi mu toll nii léegi da nga koy jàng ci kër wala nga nga nga koy jàng ci réew mi doo gis kenn wala ki koy déglu day mel ni ay melentaan moo koy fet mbokk yi kon nañ leen bàyyi xel alquran ñaareel bi commerce bi alquran la nag aaya bi lay indi mooy iqamatu salaat taxawal julli mbokk julli lu am solo la taxawal julli yonent bi sallallahu alayhi sallam nee na alsalaatu imaadu diin man aqaamaha faqad aqaama diin wa man tarakaha faqad hadama diin yonent sallallahu alayhi sallam nee na julli mooy ponku diine julli mooy baasu diine képp koo xam ne taxawal nga ko taxawal nga diine képp koo xam ne màbb nga ko màbb nga diine te sallallahu alayhi wa sallam nee na ëllëg lii yàlla di njëkk rek la ci jaam bi mooy julli kon mbokk yi na ngeen di fexee fonk julli te di ko def ci waxtu wi ndax julli lu am solo la te mooy tere it nit ki du def lu bon mooy tere nit ki du wax lu bon yàllaa ko wax te waxu yàlla du dañ inna salaata tanha anil fahshai wal munkar julli day tax doo wax lu bon julli day tax doo def lu bon waaye nag ngeen koy def ca waxtu ndax inna salaata kaanat alal muminina kitaaban mawquuta du du da ngay toog rek ba heure bu la neexee nelaw ba dix heures onze heures rek nga jóg ne yaa ngi julli am nga bàkkaar da nga am julli mais am nga bàkkaaru fexe ba moxtaar mi dem ak daruri tàkkusaan julli woo ko ci waxtu wi tisbaar julli woo ko ci waxtu timis julli woo ko ci waxtu yow daal da ngay fexe ba def benn gurolo rek ba heure boo amee jot rek nga jullindoo yëpp moo tax iqamatu salaat mooy deuxième commerce bi waaye yemut ci loolu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam troisième commerce bi mooy saraxe di saraxe mbokk yi moo tax ñi nga xam ne dañuy ñaanalaate di leen digal sarax yi leen di digal boo ci tasanteeg koo xam ne ko xam la ta man ko ah kima xam bokk man tabaarakallaahu di sëriñ Moustapha mi jéey nga xam ne ñëpp xam nañu xam gi mu xam li muy wax ak xam gi muy xam li muy def ndax fa mu bokk a tax ah sarax yam leen di digal de képp koo xam ne def nga ko man biir na mën a danga ci gis ay njariñ moo tax saraxe lu am solo la saraxe ci lu nëbbu wala lu feeñ ñaar yëpp baax na moo tax yàlla wax ñun nag léegi ci alquran te sarax sëñ Samba sarax day day day fanq maanaam balaa boo xam ne musiba moo xam ne mu waroon a ñëw ci yow la nga saraxe yàlla toxal loola da nga waroon voyager tey nga def ab sarax te voyage boobu waroon nga cee def accident faatu yàlla ne sarax bii nga def danaa fexe ba accident ba nga waroon def ci sa voyage bi dootoo ko defati ngir sarax bi nga xam ne moom nga def mbokk yi sarax nag nit moo koy coobarewoo bukkut teg azaka azaka moom du sarax azaka yàlla moo ne la force dindil ci sa alal ji nga moom nga joxe ci at mu jot boo dencee ba nga xam ne mat na lu war a mën a tax nu génn azaka mu ne la mille wu ne na nga ci génn juróomi dërëm un million bu ne nekk vingt cinq mille francs kon loola nga jox ko nag juróom-ñett yi la yàlla limal ci alquran tabaarakalla ñi la yàlla wax ne nang leen jox azaka ji ñooñee rek nga ko jox keneen koo ko jox rek maanaam du tudd azaka waaye sarax lay tudd kon nag sarax lu am solo nit ki moo koy coobareewu boppam maa moom sama alal maa liggéey bam lew ma diw ma ne kat gis naa ne fi mu toll nii tey amul lu mu lekk wala amul lu mu naan ma jël ci sama alal sarax ko ci jox ko ci te yàlla tax defal ko loolu te yàlla tax kon ñetti commerce moo tax yàlla ne inna alladina yatluuna kitaaballahi ñi nga xam ne dañuy jàng téereb yàlla bi yemuñu ci ñuy julli waaye wa anfiqu mimma razaqnaahum ñu jël ci alal ji nga xam ne moom la leen yàlla jox ñu koy joxe te yàlla tax xam nga joxe te yàlla tax nag sàmba yombul yombul de gaa yi léegi lépp lu ñuy def ña ngi koy séntu ñu waxal leen ko léegi ku la defal teraanga jox la ko ci secret te waxuloo ko ko ca mbooloo ma rek na nga yëg ne dootoo amati ci moom dara sàmba nag jamono jooj ci lañ toll moo tax pour nit def dara am ci yàlla léegi loolu yombutul kon nag nañu góorgóorlu ñun ci ñetti commerce yi mbokk yi aduna jeex na ba noppi mbokk yi te kenn ku ci ne yaakaar naa alquran bëgg nga saa boo fi jógee ñu la koy jàngal ci sa ginnaaw ndax ku génn àdduna réew mi moo tollu fu waaye alquran yaakaar gi ko yaakaar ak foor gi foor moo tax ku fi jógee ku ne rek ñu ne nañ ko jàngal alquran am na nag ñu koy contre ñoo xam ne dañ naan néew bi soo ko jàngalee alquran it du ko jot waaye loolu it yenul maanaam loolu mooy gàttañ lu li nga xam ne moom la yàlla def ci alquran alquran ak doole ji mu am nga tinoo ko ab néew boo xam ne néew bi wuy ji na boromam nga jël wax yàlla ñaane ko yàlla tinu ko ci néew bi ne ko yàlla ci barke lii nga xam ne say wax lii nga xam ne yaa ñu ko sant ñu jàng ko lii nga xam ne li ci nekk yaa ñu ko sant ñu jëfee ko yàlla yërëmal ñu waa jinte waxuñu yàlla pour mu yërëm ko force mais dañ ko jaaree ci alquran pour yàlla tinul ñu néew boobu nga xam ne mooy néew bi dem mbokk kon alquran mi ngi noonu taxawal julli mbokk yi na ngeen ko gën a fonk te fu ngeen di jullee na ngeen ànd ak laab julli du nu la neex nga koy defee dee ko defee ni mu neexee yàlla waaye it nangeen di saraxe fu ngeen toll mbokk yi lu la yàlla dénk na nga fexe ba jël ci dara dimbali ci jaamu yàlla yi nga war a dimbale ndax loolu rek mooy li am solo ci ak dund alal kenn du ko def tubay pàttewele jël ko rek def sa poos denc say compte def EGBS nga am compte CBAO eh, eh, nga am compte tabarakallaaw bisis fële nga am compte fu nga am fa compte tabarakallaaw ba mu teree laa nelaw mbokk yi loolu alal jëru ko te am na ko dendeeg sa wetu kër wallahi day dëpp cin bu xëyee añ xëy na du reer bu reeree xëy na du ndékki nga am alal ju tol noonu te di ko seetaan te boo demee Sorano wala nga dem Grand Théâtre di ko fa baatere ñëpp naan diw xaalis ba muy joxe te am na ko dendeeg ku ko gën a yeeyoo mbokk yi moo tax nañ leen di dimbalante nañ leen di bàyyi xel alquran nañ leen di fonk julli ndax loolu mooy li nga xam ne mooy la am solo yal na yàlla dolli sutura yal na yàlla sàmmuñu yal na yàlla aar ñu yal na yàlla barkeelal nu sunu dund ñuy santaan nag sunu caméraman bii tabaarakallaahu di Serigne Samba nga xam ne sonnul tayiwul saa bu ne rek mi ngi bëgg mu gën a baax ci Amsa TV gi nga xam ne tabaarakallaahu lu bari fii lay leeree lu bari fii lay xewee waaye di sant yi tabaarakallaahu sunu sëriñ sunu soppe sunu xarit sëriñ Moustapha Dieye mu baax mi mbokk yi ñu ngi koy ñaanal yàlla lu mu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla gën a nangu yàllaa ngi nangu sax waaye yàlla na yàlla gën di nangu ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mboolem waa tabaarakallaahu e, service bi yëpp yalla na yàlla doole leen sutura yàlla na yàlla barkele leen seen dund ku fi ñëw daal lépp loo xam ne yaa ngi koy sàkku yàlla la yàlla defal lu ko sa njort ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawaana an alhamdulilah rabil aalamiin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.